ñëwal kër fay local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko. comme à l'occasion de chaque fête de Noël et de fin d'année. Welma Boutique qui fait toujours plaisir à ses fidèles clients. du min ngeen Welma ak décembre à partir du 17 décembre jàpp le janvier Welma Boutique mi ngi en promo moins de 30 ba 70 pour cent ci ay njëgam costume de classe yi ngeen doon wër fu ne am na ci Welma Boutique sañse yu am maana am nañu ay chaussures basket ak ay chaussures classiques matériel sportif am nañu ci ba mu doy sëkk maillot blouson yi nag ci bëgg am na ci Welma Boutique ci Welma boutique Welma boutique Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu Mbéjee Faye wala ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 40 boutique l'habilleur des VIP le prix s'oublie la qualité reste eh, waa lii lan la liiru waa lii lan la waa liiru lii lan la liiru mais nu la dama ñëw pour féliciter Modou Lo dama kontaan. mais mais la la Modou Lo. Modou Lo. Modou Lo. roi maa ngi leen di ziar su loolu la ne mais liiru mais mais liiru man damay gënt wala lan. liiru jaar kër Modou Lo. mais liiru. mais liiru taxawal nii. liiru jaar yow lan nga def. waaw aw ma droit ñëw féliciter Modou Lo. mais Modou dëkkul kii ja waay. waaw d'accord dama ko doon support dama ko doon. non mais mais liiru yow daan a la nga muur da nga da nga muur aada. day sëy si fan day sëy fan fan. sa goro nga seet si a ah. voilà voilà. sa goro waaw. mais tey noo gisee làmb ji. non tubaab kàlla neex rek man de. ah. kaay kaay kaay kaay bi. mais lii wuyu ñu bii rek wuyu ñu bii. waaw tey da nga ñaanal Modou Lo ndam. si Diane da nga ñaanal Modou Lo ndam loolu ah.

non non non xarañ loo ay xarañ loo ay naxam fa rajoas pour ci moytu boy tafu la ngay boy lay bun ka Hey, mais liiru non non liiru siiw nga ni Fatiha. waaye yow man damaa ragal lool. siiw nga ni Fatiha. waaye yow dimbali ba nga am siiw. naka lu nekk ci eh. xol feeñ ci kanam. waaw billaay wallaay. dama ñëw pour fii eh. monument parcelle. bul ma ko waxati de ban monument parcelle monument géej nga soo ma xee monument parcelle nga am. waaw léegi Modou suy bëreeg Sa Thiès nooy def. Sa Thiès sama rek sama xarit. combat bii rek la woon de. combat bii la contrat bi jeex na. non combat bii rek contrat bi jeex na combat bii rek la woon. combat bi rek la woon. mais seen relation li mu demee. non ba nekk ay waay nii nii. su ma rakk la su ma xarit la nekk ku yaru ku joxe cër vraiment. di ko ñaanal ndamam ni yàlla na ko ji. kii moo tax fi bi tey bii arbitre la noo ko doon dundee. non nu ma ko dundee woon mooy la di ko ñaanal ndam rek ah vraiment ndax dama sama xel dafa dem sama jooy ya. premier janvier. voilà tey premier janvier bu ma nekk nii. kon tey da nga dem Youssou Ndour. waaw yow maa ngi nii dem pare

Anta Anta Anta. waaw. ak ay supporter ay am di ay xaritam. aca aca aca aca fodawgen fodawgen adama adama adama comme à l'occasion de chaque fête de Noël et de fin d'année. Welma Boutique qui fait toujours plaisir à ses fidèles clients. du min ngeen Welma ak décembre à partir du décembre jàpp le janvier Welma Boutique mi ngi en promo moins de 30 ba pour cent ci ay njëgam costume de classe yi ngeen doon wër fu ne am na ci Welma Boutique sañse yu am maana am nañu ay chaussures basket ak ay chaussures classiques matériel sportif am nañu ci ba mu doy sëkk maillot blouson accessoire sañse yi nag loo ci bëgg am na ci Welma Boutique parfum de Welma boutique Welma boutique Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu Mbéjee Faye wala ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 40 Welma boutique l'habilleur des VIP le prix s'oublie la qualité reste